taala an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ya himmata cheikh ihduri lana bi hada al-mahdari wa taatifi bi nazratin taati lana bi dafari mbooloo mi alhamdulillah maa ngi nuyu mbokki diine ak benn école ci biir diine ji muy tariqa ak mbokki daje dimanche ak rendez bu mag a mag a mag dinaa ko wax sa ci kanam tuuti yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ak ñi teew si waaw ma tuuti ak ñi teew si euh, euh, fekkee si waat di sant yàlla bu baax mi nga xam ne semaine yi yëpp mi ngi ñu may ñu euh, di daje ngir moom fii ni mu ko yàgg a mayee daje ngir moom ci fu bari wax dëgg yàlla loolu yàlla moo koy maye ñu ngi ko ciy sant ñun ñëpp ndaxte dafa am benn aay ci alxuraan waxtu wu julli demee rek ba kontaan ci ngóoraam dafa koy fàttaliwaale ne fàttalikul ne man la neex man man allah mu ne walaw laa fadlullahi alaykum ma zaka minkum min ahadin abadan walakin allah yuzakki man yashaa bu neexutoon yàlla ak lim desal kon kenn du sell ci yéen waaye nag yàlla mooy sellal ku ko neex sell bu fekkee ne junney sell la wala million sell en tout cas xam naa ci bu wóor moom mooy tàllal sa loxo sayidi abul abbas ahmad ibnu mahamad ibnu salimi tijani gëm ne moom la gëm ne sharifu nasab la nasaban mu egg ci fatimatu zahra gëm ne musul ittewoo dara du sax baax rek baax moom daf ko jëlale waaye nekk kuy baaxal moo ne woon sëriñ bu ko ne dama lay dig maqaama sangam mu ne daal mel ni ko naan ci suñu waxinu jamono loolu arrangé wu ma dama bëgg di dem rek ba nekk passage bi nga xam ne ku dugg rekk texe muy yéeg di yéeg ba egg ci nag Euh, ca càppaacoli nekk ci njoloxton yegg ci maanaam maanaam finalité finale mooy ne jàkk janoog maamam sayyidul wujud alayhi salaatu wasalaam mu ne ko amoon nga sëriñ baleen man danga leen di fonk di leen fàttaliku waaye nag léegi bul xaar dara ci kenn may sa sëriñ maa lay yar hmm. muy dox ba yëf yi ñu dajaleen ñu ko condensé ko ci wirdo woo xam ne ay minutes nga koy def foog ne defoo dara fekk def nga lépp aoudu billahi min asheytan irajim bismillahi irrahmani irrahim fatihatu kitab astahfirullah asalaatu ala annabi bilfatihiyati ya quddatil farida la ilaha illa allah subhana rabbika enkañ ah, ñi ñi dañuy wax concorde moo gaaw mais am na ndeke lu ko njëkk a départ jóge léegi léegi maa gis ko jóge léegi ci mbedd mi sànni mego ba raxasu dugg xool gaa yi li ñu def yéem ko mu geesuwaaj mu may ko wirdo fekk moom jaaroon la daara mu dugg ci wasifa wi wasifa pare toog ma mel ni du moomaat ma ne ko xam nga yow fi nga jóge mu ne ma na ko billaahi toog nga ak yonent yàlla Muhammad mooy rendez-vous bi ma doon junju kon nag rendez-vous dimanche rendez-vous ma seydil wujud waaw fa man shaa fal yu'min wa man shaa falyakfur waaye ñun gëm nañ ko hmm? kon nag maa ngi nuyu membre rencontre dimanche su ngeen daje bu ngeen daje woon ajuma ajuma jamiyatu la jamiyatul uzma rek lay fàttali waaw léegi la léegi la tàggoo am mais am na booy mont danañ dem ba lenn rek a am kenn rek a am moom la yàlla juñ ci qul huwallahu ahad waxut qul huwallahu wahidun waxut qul huwallahu faridun dafa ne ahadun ahadiyatu nag mooy booba ba yàlla nekk ci péeb ahadiyatu feeñuwul kenn joxagul kenn moom kenn rek la jundu su waxoon day day day day day maanaam day aw rek di dem di ñu fàttali ba yonent su nekkee màkk kenn xamagu ko mu fees ak yàlla xe soo ko waxee rek la muy ñes dafay muuñ yàlla xe saf yàlla day topp mbeddi màkk yi ci guddi ñu ngi dégg mu naan mu naan allah di dem ba dootoo ko dégg ci naan ah. waaye yonent bi daal Muhammad mi daal moo moo moo fan boromam kooku boobu itam yonent bi di wax Allah ci lëndëm ak Makka dafa lay fàttali ba yàlla di jundu moom kenn moo tax nag waxtu nekk boo ne patt rek waxagoo di ñu ko waaj fàttali foo mën di ne soo waxee niru leneen sooy ñëw niru lenn booy dem niru lenn aywa wérde woowu nag ba ñu yàlla sante ci alquran ne fastabiqul xayraati fas xam nga mooy njëkkalante bëgg njëkk yegg ci drapeau ba pour jël ko ñu ne raw nga mais nag ñëpp bu ñu waree raw xam nga du amati drapeau mu ne fastabiqul xayraat